barke sëñ Tuubaa Mbàkke loolu dañ ko war a xoolaat billaahi du jaaxaar li mënut a nekk moo fi ñu bari parce que ñun gis naa ne ñu mel ba fët incendie au Masora de Touba ci yàlla suñu borom fii ci marché Ocass Touba de mi ngi tàkkaat waaye sapeur pompier ñoo ngi ci di fay diir bi mu tàmbalee tàkk ak bi sapeur ñëwee moom diir bu gàtt gàtt la waaye ñu ngi jéem luñ man waaw day tàkkaat waaw lu bees la actuellement en direct lañ marché mooy tàkkaat bànqaay si biir fii nii ah tànga waaw sapeur pompier moo ngi ci mooy mooy fay Ngom oto bi mu ngi nekk ci côté centre commercial Mouridoulah waaw mi ngi nekk ci côté centre commercial Mouridoulah métti na loolu ay sapeur pompier ñu ngi jëm lu ñu man pour fay